Euh, kon mbokki tey dañoo ubbi benn xët di barkeelu di fàttali benn jaamam yàlla di fàttali genn góor ci góor yàlla yi di fàttali benn nitu yàlla boo xam ne aw turam siiw na ay jëfam feeñ na fàttali ni ñu mel fàttali ñu mel noonu nag dafa am njëriñ ci réew mi ndax dañoo am ay royukaay am ay modèle yoo xam ne jamono bu nekk war nañu fàttali seen dund ak seeni jaar-jaar ndax mu nekk leçon ci ndaw yi ak képp ku bëgg lu baax ndax yàlla nee nañu teel Muhammad fi jaaroon te am def lu baax bari siir leen nettali danañ la nettalil jaar-jaar yi ñi fi jiitu woon ndax nga mën caa roy nahnu naqsu alim nabaahum bil xaq loolu sang bi dig nañ ko ko wax nañ ko ko euh, santoon nañ ko ko muy loo xam ne sunu borom tabaraka wa taala ci alquran wax na lu bari faq su sel xasasa na nga nettali njàngat na nga jàngat li jaar li jàll ak li passé euh, bis bii dëgmal muy bisu samedi bi tey ci samedi bi ngeen xam ne mooy màggal gi nga xam ne moom la ñu jagleel nitu yàlla bu mag ba boroom xam-xam ba soppe ba góor yàlla ga liggéeykat ba yaraatekat ba di maam Cerno Birahim Mbàkke ibnu Mamour Anta Sali maam Cerno moom lañ miine ci ndaamal daaru moom lañ wax it borom daarul mu ati di rakku cheikhul xadim jage ko lool waaye jeex ci cheikhul xadim sëriñ bamba magee na ko fukki at moom maam Thierno maam Thierno mi mook sëriñ bamba ñoo bokk bay te bokkuñu yaay moom yaayam faati isa jóob la tudd di jigéen ju baax di xaabida jaamukatu yàlla di ku ragal yàlla di ku fegu ku sonn ci teg tànkam ci siraatul mustaqim moom moom faat isa waaye nag lu jaadu la ndax baayam nitu yàlla piir la yaayu maam cerno baayam nitu yàlla piir la waliyu kaamil jaamukatu yàlla boo xam ne kenn munta natt mayam muy sëñ Maxtaar Ndumbe borom kokki kookoo jur yaayu maam Ceerno Birahim Mbàkke Cheikhul Xadim bu masaa jaar fi mu tëdd ca kokki bu ko jubee ñeent fukki mètre day sumi ay dàllam ndax xam ki tëdd fii kana ci moom la alxuraan teere góor góor googu di maam Maxtaar Ndumbe àndoon nag maam Mor Anta Sali daje ci ay daara wajru Cheikhul Khatim kon su góor gu tedd gii di Maxtaar Ndumbe Jóob di nitu yàlla ba di borom xam-xam ba di yaraatekat ba jaamukatu yàlla ba moo jur yaayu maam Thierno Birahim bii kon kuy sa baay Mor Anta Sali kuy baayam Balla Ays kuy baayam Cheikhul Khadim kuy sa yaay maam Faati Isa kuy baayam maam Maxtaar Ndumbe kon laa xarwa maam Cerno baax rek a mën a nekk yiw rek a mën a am ma ami may rek a mën a am kon bi mu ganee àdduna takkoo nag ak magam ji di Cheikhul Khadim bëgg ko lool kenn jàngalu ko ku dul Cheikhul li mu xam lépp Sëriñ Bàmba ko ko jàngal maam Thierno jàngiwut ci kenn jàngiwut fenn lépp Cheikhul Khadim ko yar moo ko yar moo ko jàngal moo ko duy ba fees del sopp moom it mu soppaat ko moom it maam Thierno soppaat ko cofeel goo xam ne kenn mënu ko xayma ku yàlla bind gannaaw yàlla yonente bi maam Thierno ki mu gën bëgg ci ku naan mbindeef la mooy magam yi di Cheikhul te it noonu la ko lax noonu la laxasaay woon topp kon gis nga lu ñuy jàngee foofu mooy topp sa mag ci rek la la yokk ku la sut ne njool mi yaay njool mi ku ku la sut ne njool mi du tee nga doon li nga doon manoon naqa coog moom ndax ñoo bokk bay waaye gis nga dafa wàññeeku jël ak njëbalam yépp jox ko Cheikhul Khatim topp ko ci saahir topp ko ci baatin moo tax Serigne Bamba wóolu woon na ko trop trop trop moom maam moom maam Cerno ndax Serigne Bamba nee na lam yoo xaalif nii Cerno mi nga xam ne lam yoo xaalif nii fi chaqari yi wala fi kibari yi nee na Cerno mi nga xam ne mus ta wuuteeg man ci ak ndawam ak ci ak magam bi muy tuut tànk ba bi muy magee musta weranteeg man Cheikhul Khadim moo ko seede loolu musta wuuteeg man lu ma joxañ rek ma nga ca fu ma bëgg rek fala la jaar loolu Cheikhul Khadim seedeel na ko ko Cheikhul Khadim tuddee na ko nday jooram jël ma sàmm sëriñ ma sàmm mbake doomu bàyyam boobu ba tey tuddee ko càmmoyam ne samba ma samba may laabal waaye ceernoo may lexal kon am na fu mu tegoon maam Cerno ci ci ci ci fonkeel ak ci mbëggeel amul lenn benn wuute bu ma sa dox diggam ak maam Cerno loolu la cay seede bi muy tukki bari na ay doomi bay moom sëriñ bi bari na ay doomi ndey waaye teewul njabootam da ko dénk maam Cerno muy Cheikh Mouhamadul Fadel ak sëriñ Mouhamadou Moustapha Mbacké bàyyu Cheikh bàyyi bàyyu jël ko teg ko ci loxo yi maam Thierno ne ko li ma defoon ci defal ma ko ci ñii moo tax ñooñu ñaar li ëpp ci ñoom te ci ñoom góor gi di maam Thierno moo ko def ci ñoom taxaw mu nag jàngal leen yar leen jàngal leen liggéey jàngal leen ban fees del yar leen ba ne ar ba ñëw nu benn doomu soxna muy Cheikh Mouhamadou Moustapha ak Cheikh Mouhamadou Fadal leen lépp seen baay Cerno moo ko def ci ñoom maam Cerno nekkoon ab liggéeykat ku mën a liggéey bay xam nga Daaru ci quarante kilomètres carré te lépp lu mas a bay da koy joxe ba tax keroog ba tabe googu mu tabe woon ba mu génnee àdduna la waykat ba ne dafa nu xayra jawaadin moxti ki gën a tabe ci mbindee fi yàlla yi day rob nañ ko tey ci biir suuf su nga dëkkam bi ni tudd daarul moxti kër ak aji joxe ci delloo turwi yàlla ba pare nag ne kon tur wi ne niru boroom kon ku fi dëkk waroo tey dara lu am dimbale ko jaam yàlla ay ordonnance ay dëkkuwaay ñu amul soxna mu takkal leen soxna yor leen li gën a doy waar wutal nit jabar yoral ko ko te bokkoo moomu sant bokkoo moom aw xeet loolu maam Thierno def na ko dëggu lool nag e, gis nga Cheikhul Khadim am na benn bés mu di ko seet si fekk mi ngi jàng alxuraan ba ronga ñuy wat ci ragal yàlla ka sëriñ Bamba dégg muy jàng bi mu ne tëll moom sëñ bi jëm ci moom dégg muy jàng sëriñ Bamba sa ñemee tuuti yëkkati tànkam ndax ormal alxuraan parce que nee na dégg dégg alxuraan di dox du orma ñoom sañun ko mu ne tekk taxaw te heure yor yor la ba nodd tusbaar maam Thierno yëgul ne magam jaa ngi taxaw ci naaj wi gis nga gaaña sëriñ Bamba nga taxaw rek taxawaay bu jekk ba te yiw maam Cerno ne ci néegu sàkket bi per bi ba yàgg mu ne tëll génn bi noddee ku fonkoon julli la ndax mus sa julli te jàppul musul tiim ci dundam te it mus sa julli te demul ci jàkka ja ndax moo koy jiite bi mu ne tëll ub kaamil bi di génn la seen seen sëñ bi taxaw mu ne ko mbàkke mbar jàmm lii kañ la mu la ko ca yoroon ba tey maa ngi taxaw waaye jërëjëf jërëjëf jërëjëf Thierno sëriñ Bamba ne ko jërëjëf Thierno yow de neex ngaa yóbbaale ndax yaa nga ca lii la maam Cheikhul Khadim ci maam Thierno de neex ngaa yóbbaale ndax yaa nga ca yoon wa parce que bari bëgg na ku bëgg bari na ku bëgg a ànd ak nit te awoo jaar nu ngeen di àndee nit boo bëggee ànd ak moom. wala nga dëkk moom da ngeen di bokk aw yoon mu teggi tànkam nga teg sa tànk wala ngeen leroo soo ko munta jiitu ngeen lero wala nga dox ci gannaawam waaye jëmoo fi ma jëm jaaroo fi ma jaar te te bëgg ñu dëkk déedéet wata sëriñ Bamba keroog loolu la ko tontu is kay mbàkki yow day neex nga yóbbaale ndax yaa ngi ci yoon bi kon loolu jikkoy maam Cerno la woon xam-xam nag moom doo xam fu ko jëlee comme li ma la wax li tax mu yéeme fànn yépp la maîtrise amul lu maam Thierno xamul ci xeetu xam-xam amul lu xamul nag amul lu munta liggéey ci liggéey moo tax ku mu yor ku yar rek jàngal na la métier muy liggéey waaye jàngal na la xam-xam ba ci ay doomam cofeelam ci yonent bi nag doo xam fu mu yem ndax gis nga doomam yépp turi sax yi la leen tuddi ay Aboubacar ay Omar ay Ousmane ay Ali ay Mixdaad ay Subayru ay Abbas ay Talaata ñëpp turi saxaaba yi rek la leen tuddi moom Cheikhul Khatim moom moom maam Thierno Birahim ngir wane cofeelam ci yonent bi ak ay saxaaba euh, bi sëñ bi demee ci gi wàccee ko njaboot gi mu yor ko ndax booy dénk da dénk ko wóolu ndax Serigne Bamba nee na ñett laa yor lu may jaay ak lu may maye ak lu may dénkaane mu ne li may jaay nag kenn rek am njëgam te jënd na ko muy Ibrahima Fall li may jaay am na njëgam te jënd na ko mu ne li may maye nag li may maye may naa ko Cheikh Anta borom gaawaan waaye li nga xam ne nag dama koy dénkaane dénk naa ko Thierno kon boo xoolee ñetti martaba yooyu am na bu gën a fort parce que jaay bu am njëgay jënd maye ku la neex ngay may mais ndénkaane moom koo wóolu confiance kon loolu rek dèjà wane na la wan na la maqaama ak martaba ak daraja bi maam Cerno am ci Cheikhul Xatim li may jaay kenn am njëgam di Cheikh Ibra jënd na ko li may maye kenn laa koy may may naa ko maam Cheikh Anta waaye li nga xam ne dama koy dénkaane na kenn na ma doy di maam Cerno Birahim Mbàkke daar lu ma atti kon gis nga loolu cër bu rëy la maqaama bu rëy la daraja ju rëy la moo tax bi sëñ bi demee géej cofeel gu mu ci sëriñ bi demoon nan ba tubaab bi naroon koo karyeel ndax taxawaayam ci sëñ bi ak nim ci sonne ak ñàkk tiit fit wi mu am njàmbaar gi mu am ba tubaab yi bëgg yóbbu moom maam Thierno bëgg ko yóbbu ndax rekk naqar wi mu am ci sëñ bi dem gim dem te bi ko sëñ bi bi sëñ bi dem te bu kenn génn sa kër kenn ku ne fa nga toog toog fa ba ma fekk la fa bam mu baat boba mom sëriñ mom mam Thierno daf ne ah bis ni ki tay dé dutu mo wax kenn assalamu alaykum wa alaykum salam rek lay wax dutu mo wax kenn assalamu alaykum wa alaykum salam lay wax loolu moy lan moy dutu ma dem ci kenn ndax kuy dem yaay neyo kin fekk ci moy fay neyo kon kuy fay neyo la waaye du may wa alaykum salam lay waxati dutu ma assalamu alaykum loolu ci deg ndigal Cheikhul Khatim ak top ko. daaru muxti googu 1912 ci la ko gor ci la ko sanc ak baatin ya ko fa sëriñ bi wax yépp nag ci biir dëkk ba ba koy sanc benn bis nag tubaab yi doon nañ ko naqaral di ko sabote di yokk naqaram xam na ni ci sëñ bi ak cofeel gi ñu indi benn leetar yónnee ko ko ne ko sëñ bi day sa mag ja day yàlla def na la ko soob ci moom génn na àdduna keroog bëccëg bëccëg boobu amul bëccëg bu ko gën a naqari ci lim dégg moom maam muy maam Thierno lim dégg amul lu ko gën a naqari ci àdduna dégg-dégg boobu muy bàgg rek bu duggee ci wana wi génn dugg néegam génn dugg ci jàkk ji génn bëccëg bi yépp nanguta lekk nanguta naan ndox ndax naqar soxna si génn mooy maam Faati Isa yaay ci ne ko ah Cerno lu xew yow nii nga ñaqee ak sa dox bii du dugg ki génn lu xew mu yëngal bopp bi maam Faati Isa ne ko wax ma lu xew yaay na ko wax ma lu xew mun ko ay li yëwoon dañ ma indil noël bu ma naqari te métti ma te mooy dañ ne ma sa mag ja yàlla def na la ko soob maam Faati Isa ne ko dëgg dëgg Cerno yaa bet Cerno foogoon naa ne man nga waaye ndekkee matuloo Cerno yaa ma bett Cerno sa mag ja munta faatu te man dugaluma ci bàmmeel bu leen fàtt bi maam jaare génnee àdduna sëriñ Bamba maam faati issa la def yaay waaw moom la def ndeyam xaqan amul benn soxna ci soxnaay waajuram yi ma maam maam sëriñ Bamba amul benn soxna ci soxnaay waajuram yi kum tuddee doom ku dul maam faati isa maam Faat Isa rek la tuddee doom mook sëñ Murtada ñoo bokk kon gis nga cofeelam ci soxna soosu soxna si nag dikk dénk ko boppam te ba koy dénk boppam dafa ñëw ba ci moom joojoo yu métti moom maam Faat Isa sëñ baa ma ne ko lu xew mu ne ko ah, damaa ragal bàmmeel man de bàmmeel tiit naa wéetaayu bàmmeel xataayu bàmmeel lëndamaayu bàmmeel tiit naa ko man isa job señ ba ma ne ko suma la ci dugalee nak kana suma la ci dugalee do tit mu nak ah loolu soo ma ko sama xel dal mu nak ko warlu na la ko bis ki tey maa lay jullee ma lay dugal ci bàmmeel wax joju nak man Faat isa du ko gëm nak ko koku du wax luy deñ ta mo ne mo dana ma dugal ci kon kula la wax dem na na aduna waxul deug won ko gannaaw loola moo dalal xelu maam Cerno fit wi dal xel mi dal gore yàlla dogal gis nga loolu bi mu xewe mata bi sëñ Tuubaa ñib si ab diir dafa ñëw ci xéen bi mu ñëwee ci xéen la woolu maam Faat Isa pour mu fekki ko ci xéen ci xéen ak ci jolof borom boobu bulal ba na ko sëñ bi dalaa soxla ma nga ci xéen nee na nga wujj ko maam fàtte na ko ndesee boo ma tàggoo te battale fay samay bor xam naa ne damay génn àdduna la ma war la loolu la bëgg a def loolu la maam fàtte sa wax moo tax ba mu demee ay fan ñu ne simin ñu ne fukki fan juróom la fa nekk ak moom maam fàtte sa génn àdduna fekk sëriñ bi yor kurusam bind kayit joxe ne nan ko sang jébbal ko boroomam walay ndeysaan ñu sang soxna si yaay maam Cerno Birahim jullee ko yëkëti bëgg dem ci bammel jaar gi su ñu yëkëti yëkëti nangu tëccu ñu wat ci xol xati da ko ah, la ñu santoon de def nan ko ay amna lu ñu të mu ne ko lan mu ne len lan ñu ne dugal ko ci bammel bi de la da ci su armel bi ba ah, gi ba mu ne bëre na wax na la ko digoon ko maa ko digoon dugal ko ci bàmmeel loolu lay xaar ci man doon na ñokkit ñëw dugal maam Faty ci bàmmeel bi moo tax ma nga tëdd ci yéen gii yaay maam Thierno Birahim kon loolu loo ciy déggee dëggu ak cofeel kon war noo jàngee ci maam Thierno bëgg yonent bi ndax wane na ko ci doomam jur yépp ak nangoo liggéey ndax ku mu jur yar na la ci liggéey daan sa doole ak nangoo jaamu yàlla ku dund ba génn àdduna mosoo tiim mosoo julli ci lu dul jàkk yaay jiite say doom kenn ñi muta julli ci këram wala néegam loolu ci biir jàkk ji loola tomb la bu nu war a jàngaat xoolaat ko roy ko ci ba ca des nag mooy fonk sa mag bëgg sa mag jox ko lim moom nangu ko topp ku toppiwul kenn du la topp dara ji joo mën a am sa maga mag wilaay boo mën a am sa mag la mag jox ko lim moom rawatina mag ju baax rawatina mag ju baax sëriñ maam Cerno na sama bët bi tegeegul ciku ku gën xaadimu rasul te mooy magam mu nangoo seede loolu sama bët bi tegeegul ci ku gën xaw ma it ku ko raw man man Cerno Birahim kon mbokk yi nitu yàllaa ngoog wàlli yoo ngoog kuñ war a jàngata ngi noonu ko ñu war a royee ngi nii ku ñu war a jàngale ci école yi ndaw yëpp xam mag ñi nu am li ñu liggéeyal yàlla fañ doon taxawee ak ñun dëppoog siraat ñun tegee seen tànk ci kaw siraatu mustaqim ak di ko dundee seenu ñaq ak di ko toppee yàlla ñu jàngale loolu ci école yeeg fu ne su ndaw yi xam ne am na lu ñu am kon nag lii jaar-jaar la ci góor gu tëdd ah, loolu la leen ci doon tënk rek ñu jàngat ko fàttaliku yal na yàlla taas ci barke bi yal na yàlla dolli ay leeram ci barke yonent bi